ñaar korent sar benn walla ci lindiin di ñaareelu bataaxal bi yàlla may pool mu bind ko waa korent man pool ndawul kirist yeesu ci coobaleek yàlla man ak timote sunu mbokk noo leen di bind yéen mbooloom yàlla mi nekk dëkku korent ak gaay yàlla yu sell yi nekk ci diiwaanu akay yi gépp ne leen yàlla sunu baay ak boroom bi yeesu kirist may yiw ak jàmm cant ñeel na yàlla bàyyi sunu boroom Yeesu Kirist di baay bi aji yërmande tey boroom lépp luy defal xol yi mooy defal sunu xol ci sunu tiis yépp ngir nun ci sunu bopp nu mën a defal xolu ñépp ñi nekk ci tiis di leen sedd ci noflaay bi yàlla def ci sunu xol ndaxte ni coonoy kirist di baawaane ci nun noonu it la kirist nekke buntu noflaay bu yaa bii defal sunu xol suñu jaar ci tiis seen noflaay tax ak seen mucc bu dee yàlla defal na sunu xol seen noflaay tax ngir ngeen mën a dékku naqar yu mel ni yu nuy am nun itam te sunu yaakaar ci seen mbir dëgër na xam ne ni ngeen bokke ak nun naqar noonu ngeen di bokke ak nun noflaayu xol ndaxte mbokk yi bëgguñu ngeen umpale tiis wi nu daj ci diiwaanu asi yenn bi diisoon na lool ba weesu sunu kàttan ba amatunu yaakaar sax ci dund demoon nanu ba defe ne dogalees na sunug dee loolu amoon na ngir ñu bañ a wéer sunu yaakaar ci sunu bopp waaye nu wéer ko ci yàlla miy dekkal néew yi moo nu musal ci dee gu metti googu te dina musalaat ci moom lañuy wékk sunu yaakaar ne dina nu musalaati bu ngeen nu jàppalee di ci boole seeni ñaan noonu ñu bari dinañu gërëm yàlla ci yiw wi mënu may te muy tontul ñaani ñu bari li nuy tiitaroo moo di sunu xel day seede ne ci kanamu àddina si rawatina sax ci seen kanam aw nañu ci tànk yu jub ànd ak xol bu laab fa kanam yàlla jëfewuñu ci pexem nit waaye ci yiwu yàlla la lañu jëfe binduñu leen nag leneen lu dul li ngeen jàng te xam ko fii mu ne seen xam-xam ci nun matagul waaye yaakaar naa ne bu matee dingeen mën a tiitaru ci nun ni ñu koy defe ci yéen bu bisu borom bi Yeesu ñëwee kon ni mu amee woon kóolute googu naroon naa jëkk a jaar ci yéen ngir ganesi leen ñaari yoon bëggoon naa jaar ci yéen dem diiwaanu masedwan te bu ma jógee masedwan dikkaat ci yéen ngir ngeen waajal sama tukki ca yudde ba may mébét loolu nag ndax dama cee boolewul Pastef te ndax sama yéene yéene nit kese la ba may xel ñaar naan waaw ak déet wóor na yàlla ne li nu leen di wax du waaw ju ànd ak déedéet ndaxte doomu yàlla ji Yeesu Kirist mi nu doon yégle ci seen biir man ak silwaan ak timote nekkul woon waaw ak déedéet waawi yàlla la mës a nekk te lépp lu yàlla dige woon fekk na waawam ci moom noonu kon ci kirist lañuy waxe amiin ngir yëkkati ndamu yàlla te yàlla moo nuy dëgëral ci kirist nun ak yéen te sol nu xelam moo nu màndargaal ni ay gaayam def xelam ci sunu xol muy dawal ci cër bi mu nu dencal yàlla seede na ma te giñ naa ci sama bakkan ne yërëm leen rekk moo tax delluseeguma korent du caageen nag noo leen bëgg a noot ci lu jëm ci seen ngëm waaye nu ngi liggéeyandoo ak yéen ngir seen mbég ndaxte ci ngëm ngeen sax